wa maa xalaqatul insa wal jinna illa wa maa xalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ah, di julleek sama ci xayrul xalqilaahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla dolli ci moom salaatu ak salaam ginnaaw loolu ñu ngi leen di nuyu nuyu bi gën a sàll mu di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw loolu ñu ngi leen di ziar di leen baal xaq di leen baal xaq. di leen ndokkeel ci weeru tedd wi weeru sell bi di shahru ramadan di ñaan yàlla lépp luñ ko fi jàmm yal ko yàlla nangu ci barke alxuraan karim di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu xarit suñu ustaz suñu baay di ustaz Abdou Samad May nit ñu bëri dañ koy jàppe ci contexte maanaam woo ko ustaz te mën yaakaar naa ne mën ñun ñëpp mën leen d'accord ni mën nañ ko wooy baay ndax yemul ci jàng alxuraan rek waaye su demee ba war kaa jàng jàng euh, war a jël exemple ci moom rek exemple baay la war a doon maanaam life lesson nañu jàngal bis bu ne yàlla ko yàlla gu yàlla yàlla guddal fanam lool ba naat bi mu bëgg naatal yoonam gi yoon gii di yoonu lislaam yàlla ko yàlla matal euh, li ma bëgg a tàmbalee waxtaan bi mooy su leen fàttali ko daaw wala at bi ko jiitu oustaz Abdou Samad May invité na fi ku ñuy wax Seydina Issa Laye Samb bi mu ko fi invité nag su ma juum dafa am benn xasida bi mu doon waxtaan mu tudd Mawaahibu Amdaa waaye bi muy commencé waxtaan googu xaddamaatul amdaa jërëjëf xaddamaatul amdaa waaye bi muy commencé waxtaan googu dafa am rêve boo xamante ni nit ju bëri bàyyi ñu ko ba tey mooy lan rêve boobu mooy lan leen mën a def ba tabax ak communité yoo xamante ni genre bridge lañu tabax diggante tarixa yi moo xam murid nga tijaan xaadar ba ñes nga tarixa bu mënti doon te bañ tabax ab miir boo xamante ni moom lañ di mën a tàqali man ma man a teg ci nii lan leen mën a def ba doon bokk ci ñaari tarixa ak même euh, ci at the same time te du la yàqal dara waaye am na benn question boo xamante ne war nañ ko laaj kenn ku ne ci ñun mooy loolu mooy mooy mooy lan moo tax loolu mënta am what is wrong until that that that dream can't come true yet fu may commencé mooy yaakaar naa ni li ma gëm mooy tawhid bi dafa des ba léegi maanaam balaa ngay wax sax que ne kër gii laa laa gëm mbaa wala Cheikh Khadim laa gëm wala Maam Baay Laay laa gëm wala baa Ñas laa gëm sax gëm yàlla dafa war a mat ba pare te su suñu waxee gëm yàlla du mën neen wax ne du julli ak a natt azaka baa dem ak parce que yaakaar naa ni ñun Sénégal ñoo ko fi dàqale ñu ñoo am chance boo xamante ne mën naa wax ne sax beneen réew amu ko mooy suñu mag ji baax ñi euh, ñu am te yàlla moo wax ci moo yàlla moo wax ne balaa nga koy jàmm xam leen ma ba pare ñu koy jàmm tey su suñ mën nañ dem wax ne tey su fekkee ne dafa am kenn ku ñu ne la yàlla mi ngi fépp dina am kenn koo xamante ni the wrong way la koy jàppe maanaam kon suñ suñ waxee ne yàlla mi ngi fépp kon mu neen wax ne yàlla bi yàlla mi ngi ci weer bi kon nañ jàng weer bi que day naan maa ngi sant yàlla ak weer bi dégg gis na ko fi maanaam jaamu jaamu loo xamante ne dañ koy bokkaale te yàlla bokk na ci bakkaar yi gën a rëy te yàlla tamit def na ne moom am na lu mën yoo xamante ne ñun ñii di nit mënuñu ko par exemple dañuy lekk ak naan ak def yoo xamante ni loolu la human that's what a human supposed to do yàlla nag genre security guard lay lay ko a jàppee waaye security guard boo xamante ne du gëm. maanaam mën na xoole vingt quatre du gëm wala yoon xam nga li koy waxee ci olof euh, yàlla nag mu ñuy xool ci moment yi ñu leen di déglu ay waxtaan moo xam weeru koor bi bi mi ñuy gis waxtaan euh, waxtaan bi may def mi ngi mi ngi dégg tamit waxtaan bi may def mu ngi leen di gis tamit toog bi ngeen di toog di ma déglu euh, leneen itam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mës a wax ne ci ñu nekk ñi nekkagul jullit mooy ah, su fekkee ne ñoo bëgg a tub dugg ci diine lislaam am na ci borom xam-xam yu bëri nee na yonent bi sallallahu dafa wax ne bu leen xool li jullit ji di def li tax mu wax loolu c'est parce que am na yenn jullit joo xamante ne comme li ma waxoon sànq rek they always go into the wrong way te suñ mën a suñ dañuy kon la lay def ni kon ñu ne ko julli dañu ñëw ci ku mel ni oustaz Abdou Samad Mbaye moom mooy xam ne moom suñ bépp laaj bu ñu ko mënta laaj dañ ko daf koy tontu waaye day ànd ak ragal yàlla ragal yàlla boo xamante ne lépp lu ci alxuraan wax mu tontu ko ci lépp lu ci asida euh, euh, hadis wax maanaam li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax loolu la ci tontu. léegi nag su su la yàlla dimbalee ba nga mën a xam kan mooy dëgg-dëgg yàlla. ba mën kaa jaamu maanaam li leen lislaam digal moo xam woor la natt azaka euh, julli ak dem aj ci nga mën a choisir nag tarix bu la euh, neex boo xamante ni tarixa bi benn bu ne ci ñoom moo lay gën a mën a dimbali ba ba yegg ba mën laa jege jege yàlla suñu borom euh, foofu laa bëgg a taxaw choisir ñett ci tarixa yoo xamante ni da nga koy summarize rek mais duñ du duñ guddal yoo xamante ni benn bu ne soo ko soo ko xoolee bu baax dañ lay dañ lay gën a mën a jegal yàlla tarixa bi ci bi ñuy njëkk a changé mooy tarixatu tijaaniya suñu suñu waxee tarixatu tijaaniya suñu xel yëpp war a dem ci Seydi Hadji Malick Sy di doom ci Ousmane si ak Maam Faa Wadd Wale moom moom mi taxawal tarixa googu noonu moom nag benn mission la amoon ba ñaar mooy xamal nit ñi yàlla xamal ko may yonent bi sallallahu alayhi wa tey suñ doon jeu genre like video games ba euh, video game bi jeex dañ lay wax mission accomplished te mën naa wax ne Seydi Hadji Malick Sy moom mission euh, euh, mission is accomplished ndax bind na ay xasida yu bëri bëri bëri yoo xamante ni mën naa wax ne jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi la ak kan yàlla ak ak ak yi ci aju benn ci exemple yooyu noonu rek ñun ñëpp am na benn événement boo xamante ni jullit yëpp a ko bokk mooy suñ demee ba ñetteelu weeru jullit mooy muharam ñëw safar ñëw rabiul awal ñëw mooy weeru gàmmu suñu xel yëpp fen lay dem mooy tiwaawu ndax foofu la lu ñuy wax burdu foofu lañuy def defee burdu gi ci fukki fan yi yëpp fukk guddi fukki fan yi yëpp foofu la ñuy maanaam soo déggee ñu ne mawlaay salli wa sallim lim lim daay man abadan ala ala habibi burdu googu ngeen baal ma burdu googu noonu saa yu saa yu euh, saa yu waxee ne suba la benn fan ci gàmmu suñu xel yépp foofu lay dem ndax moo ko fa liggéey maanaam te li li waral fukki fan yooyu noonu c'est parce que borom xam-xam yu bëri dañ doon warante على ka xayril xalqi kullihim ngay dégg ba fukki fan yi mag fukki fan ak benneel bi ñu noppali ci fukki fan ak ñaareel ji ñu gàmm am na boroom xam-xam yu bari dañ doon warante naan ndax yonent bi benn fan bi la juddu am ñu wax ni juróomi fan la juddu am ñu wax ni fukki fan yi juddu kon loolu tax ñu waral gàmm gi yëpp guddi gu nekk ñu budd fukki fan beneen bi ñu noppeeku fukki fan ak ñaar kenn ku ne ci ñun ñu gàmmu ci euh, leneen itam mooy yiw moo ci nekk ci maanaam waxuma sax ki ko def mais ki toog këram di ko dégg yiw la ci am waxuma ak dëkk boobu bépp di burdu euh, ma bëggoon jox suggestion boo xamante wan ne mën na ko sax même su nekkul ah, gàmmu gii di ñëw ñu mën kaa préparer ci future bi ndax su ma jëma 2018 ba 2019 laay laay yi dafa neen lu mel noonu ci yow maanaam nekkul loo xamante ni tijaan yi donc ñoo ko war a mën a def mooy waaye jullit yëpp mu ñoo ko mën a def suñ demee boo war a préparer gàmmu gi parce que loolu lépp pour gën a xam kama yonent bi sallallahu alayhi donte ne nag du du fukki fan yi dong lañ ko war euh, xam mooy kan waaye ci lañ gën a taamu kan mooy euh, xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma joxe suggestion fii ci Naylul Maram suñ dana ba wax ne suba la suñ euh, tey la sant bu njëkk mooy vingt neuf ñu wax ne suba la premier premier jour Rabiul Awwal war gàmmu war nañ mën a def lu mel noonu par exemple Tijaan ñu ngi koy defee si zawiya bi dañuy burdu ñoom ñu mën a but budd boo xamante ni da koy def tamit comme ni ko zone bi seen xajaman rek di ko defee ñu budd guddi googu noonu suñ demee ba but googu jeex moo xam Mourou Bassirou Fall la moo xam oustaz Mour euh, oustaz Abdou Samad May la mu ñoo wax tuuti ci moo xam bunt bi la moo xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne ñibbi suñ demee ba def ba def ko juróomi fan ak ñeent yi ba mat fukkeel fan bi duñ ko fi defee ñu def ko ak suñu mbokk tiijaan yi ñu tëje ko ak ñoom suñ demee ba fukki fan ak ñaar mooy bésu gàmm gi ñu mën leen a dimbali ci wàcce kaamil bi moo xam ñu koy def wala ñu ñàkk kaa def wala ñu mën kaa dimbali ci bëccëg bi guddi gi ñu mën a ànd ak ñu suñu mbokk murid yi mun nañ ko defee tamit suñu mbokk laaj yi moo xam ñu ko ñu koy def tamit waaye day gën a mën a dana tax diggante bi entre murid yi ak tijaan yeeg laaj bi fi ma bëgg ñëw tamit mooy kenn ci doomu Serigne Hadj Malick Sy ñu tëddakal xalifa mooy Serigne Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu moom tamit mu nekk doomu maam Rokhaya Ñaay moom nag mu am lu mu loo xamante ni mën naa wax ne ñëpp ko bàyyi xel ci senegal ndax jamono jamono jooju noonu ci la tubaab ci la tubaab yi maanaam boobu amaguñ sax suñuy indépendance ñun tubaab yi sonal nañ ko mu daj loo xamante ni du wax ne keneen daju ko fa waaye sonal nañ ko sonal boo xamante ni dañ kaa xatal foofu waaye ma joxe ñaari anecdote yoo xamante ni day wane euh, Pape euh, Serigne Hadji Malick Sy moo moo si defoon jikko jikko jooju noonu ci Serigne Babacar Sy bi si nekk mooy am na benn bés boo xamante ni jumaa dafa jot am benn naar boo xamante ni daf kaa dafa jiiti juma julli googu noonu julli jumaa Sëriñ Babacar Si romb jumaa jooju noonu dégg ah, naar bi di jiite bi mu duggee dafa wax ñépp ne sëlmal julli googu bi mu waxee pour mu sëlmal dafa laaj kama ah, ana Atouma Ndiaye Atouma Ndiaye ne maa ngi nii mu ne Sëriñ Babacar Si ne ko demal ah, jiite te li tax naar boobu jiite mooy parce que musaafir la ngal la am na am na borom xam ñu bari bëri nee mu musaafir amul droit jiite lu mel ni julli juma. su su fekkee ne gan la kon biñ biñ demee ba Atouma Niang sëmbal ñëpp doon waxtaan Fulay Ababacar Seye kon mu bokk ci jikko yoo xamante Seba Seydi Hadji Malick si dugaloon ko ci Ababacar si te jële ko euh, kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam mooy tubaab yi dañ kaa xataloon xat boo xamante ni wala sonoon ko sonn boo xamante ni dañoo yaakaaroon ne moom jàngul ne waxoon ne kenn koo xamante ni jàngul xamul français mu bind xasida boo xamante ni daf kaa jaxase français ak arab mu ne waxay sumaale kaytu minhum wahida yakulu mais e be yakunu shahida il faut il faut muallafun bila ajal si si wa wi la dat taqiqi qawlu wa amal wa zakadat bu musbitu ma parce que wa sabata nafsal hadisi est-ce que ci la leen tontoo tonton googu noonu mën ah, ci la ci la tubaab yi cover their mouth ba ah, ba jamono jii nii kon day wane ne Seydi Ababacar Sy mënoon na défendre défendre boppam boo xamante ni doonte ndaa amoon jàmm ak ñeneen bo ah, te ñeneen kilifa daa mën défendre boppam ci tubaab bi mu bokkoon ci jikko yoo xamante ni ci la Seydi Babacar Sy ci la Seydi Hadji Malick Sy dugal ci Seydi Babacar Sy moom mi nekkoon temps euh, suñ tëjee tarixa boobu noonu tarixati tijaan ya ñu mën a dugg ci tarixati muridiya euh, Cheikh Khadim taxaw taxaw moo taxawal yoon googu bi mu ko taxawalee waa mu nekk doom ci Mamour Anta Sali ak maam Jaaratullaahi Buso ah, nit ñi di bari doon du bàyyi xel danga koy wax nii rek ba après go next move on mooy Seydi Hadji Malick Sy ak Cheikh Khadim ay mbokk lañu maanaam deret ndax ñoom ñaar ñoo bokk maam maaram Màkke noo leen nekkee ay mbokk waaye kenn ku ne ci ñoom taxawal neen ab yoon boo xamante ni Seydi Hadji Malick Sy musul wax lu ñaar ci Cheikh Khadim Cheikh Khadim mosul ci Seydi Hadji na ci benn ci boo xamante ni Cheikh Khadim daf ko am bind te nit yu bëri du bàyyi xel mooy bi ñuy wax rabbi bi maa yasharahu soo demee ba ca jeexantal bi mi ngi ne yaa maalikal mulkiya man jalahan xawadin irham jamial waraha yaa haadiyan yow borom nguur gi yow mi kawe ci lu dul womatu te doo fayante yàlla nga ñuy yërëm mboolem mbindeef ki yow mi génn ko alkuki te mën naa wax ne loolu day wane cofeel bi Cheikhul Khadim am ci jullit ñëpp jullit ñëpp walla wax waxuma nga doon doom parce que feeb ndax fe toog na fi feebar feebar boo xamante ne mu metti ba muy wax bara borom moom naan ko xaaza wa innihi yawman zu aw jaa'i maa gi ànd ak bulóor yu metti mu tax yeen awmal mu jeexi daay te bu leen li ma waxoon rek feebaroon na feebar mu metti te mi ngi ba léegi mi ngi wax boromam naan ko ixfir lahum jullit yëpp jéggal leen waa na waa nafaayihim dafa leen aafiya wal tuf bihim yërëm leen wala tuaaxi wala tuaahishum bil kasiri dan bihim bu leen jàppe seen bàkkaar yu bëri yi fa innahum nax naxte ñoom wa in asawka yaa ahad donte ñu ngi lay mooy sax li aflatin dañu dañoo sàggan rek waaye lam waaye lam yushriku bika ahad musuñu laa bokkaale kurul yow wa innahum te ñoom adnaahum seen yaram la takbiru ala balaika li daafin yash yashhalu feebar leen faiblesse boo xam ne mën nañu laa def mënuñu laa def lu lay lu lay wàññi dara lakinnama talaasusul jawaarihi kullu ba kullu bahum laysa tamilu abada te am naa lu ma xam ci ñoom de léeg-léeg dineen def ay bàkkaar waaye seen xol yow rek yaa ci nekk te mi ngi wax ak borom bi euh, subhaanahu wa taala Cheikh Khadim nag lim euh, ak lépp lu mu daj bi muy génn moom rek a génn coono yi mu moom rek ka te bi muy bi mu bi mu waree jël awardam wala certificat bi dafa ñaan yàlla suñu borom nekk bunóor bi ne nekk bunóor boo xam te ne pour jullit ñëpp la maanaam bi bi ko bi bi mu demee ci géej gi ñëwaat ak lim daj yëpp ak tubaab yi ñaan yàlla na nekk bu na koo xamante ne pour jëli ñëpp la ñaan ko yàlla fayal Cheikh Khadim nag bind na ay xasida yu bëri yoo xamante ni day ñaan yàlla yërmandeem ak ah, mu jéggal ñu ah, musuta maanaam murid laa waaye damay ñaan yàlla ci ñi ma gëm dong nan nan nan bokk ci ñaan googu ba muy taxawal nag yoonam gii di yoonu mu tudde ko murid laahi su ko neex mu tudde ko bamba laahi wala wala tuba laahi wala tudde ko boppam waaye tudde ko mu tudde ko murid laahi te murid laahi mooy yoon bi jëm ca yàlla ci weer bi nag la ko la ko taxawal te su ko neexoon su te suy wax murid laahi tijaan bi ci la bokk laay bi ci la bokk ñeseen bi cana ba ba ci ñuy ba like the nicest way ni ma war a wax mooy ñi ñuy woowe seen bopp ibaadu rahmaan te nee neen amul amul sëriñ ñoom ci muridu laahi googu leen bokk euh, turu tuubaa bi tamit mu ngi koy jël ci euh, alxuraanul karim ci aay bi yàlla di wax ne allazina amanu wa amilu salihati tuuba lahum wa husna maabin ci suratul ar-ra'd nit ñi naa ah, ah, am nañ ci boroom xam-xam yi wax ne tuuba bi yàlla di tudd ci alquran ah, dafa nekk suma juma garab garab bi day garab bu rëy la suma juma te li tax Cheikh Khadim jël tur parce que dafa ñaanoon yàlla yokkute tuuba dëkkam di tuuba tamit yokkute ci jumaa ji di jumaay Tuuba notice how depuis euh, bi fi si Moudou Moustapha taxaw euh, toogee tooge fi ba euh, ni fi si mu taxaa tooge yokkute dëkk bi ngay xool ngay gis tout le te moo ko ñaanoon ci xesaram googu ñuy wax Matlabul Fawzayni notice tamit que ni ni ni suñu Cheikh Khadim jaam yëpp mooy suñ demee am na benn xasara bi ñuy wax jawritu su demee ba am jullit boo xamante ne dafa wàññi dafa wàññeeku moom lañ koy jàngal gis naa fi koo xamante ni ab laayin la jàngal nañ ko fi xasida googu di jawritu kon day nekk day nekk xasida boo xamante ni ci biir xasida googu noonu du pour murid yi donc mais da gis koo xamante ni tijaan la ba laayin la wala yeneen tey xëy day day day day day jàng xasida boobu noonu te li ma ci li ma gis xasida googu day joxe day gën a joxe explanation wu mbaatu laa ilaha illallah mu da ngay gis ustaz Abdou Salam Mbaye ba imaam Moussa Diop wala imaam imaam Khadim Bousso saa ñu waxee saa ñu seen xutba day naan ah, ah, maa ngi seede ne am benn buur bu ñu war a jaamu jaamu ji am ñari ñàkk jaamu moo di indeeb loolu këru borom bi subhaanahu wa taala baat boobu mooy li war li mu war a défendre mbaatu laa ilaha illallah Euh, kon day wane ne muridullaahi googu noonu bi Cheikhul Khadim taxawal ñaan na fi ñaan yoo xamante ne pour jullit ñëpp la ci leen mën a dugg tamit ci tarixa tarixa laayin yi moom mi nga xam ne maam Limaamu Laay moo ko fi taxawal mu nekkoon doom ci maam Kumba Nooy ak maam Alassane Thiaw yàlla daf kaa defal nag loo xamante ni balaa muy judd sax fekk na Cheikh Omar Fouti moo fi nekkoon balaa muy judd baayam di baayam bi ñuy wax maam Alassane Thiaw dafa ñëwoon boobu jamono jooju moo moo jiite woon Cap Vert su ma jëmoon dafa amoon guerre boo xam ne Cheikh Omar Fouti moo ko jiite bi maam Alassane Thiaw di waaj a fekk si Cheikh Omar Fouti Tall Cheikh Omar gis nañ ñuy waaj a ñëw am na lu am na lu muy dégg ci ndiggalu maam Alassane Thiaw naan la dégg ci ndigal Alassane Thiaw allah allah allahu rabbana allah allah allah wasibuna bi mu ko déggee mu ne ko wàññeeku leen te bépp dombale am tëdde leen climat moo wax amuñu benn option lu dul ñu wàññeeku tudde leen ñu tudde bépp bépp doom bi ñu amoon ñu tudde ko limaamu am ñu wax ne bi mu ko waxee am na vingt quatre góor yoo xam ne judd nañ ci ñu tuddee leen limaamu am na ñu wax ne ëpp na ko am na ñu wax ne ëpp na ko ah, alakuli al def na ndigal loolu ba mu des limaamu mu maam Kumba Ndoye maam Alassane Thiam ñu tëddal leen ko ah, maam limaamu laay juddu mu nekk ñaari waajuram ba ah, man ni waajurum bu jigéen wàññeeku bi mu wàññeekoo ci la taxawal yoonum gi di yoonu euh, Laayeen ngi pour indi leeral Maam Baay Laay musuta woote woo woote woo boo xamante ni tey naan euh, par exemple bokkaale yàlla wala nag leneen dafa am na soo leen gisee appel bi saa yu jotee benn baat dong ngeen di dégg moo di aji aji boo daaya ajiboo daal di laaj mooy ban lan lay lay lan lay lay woo woote ci diine gii di diine lislaam gii di diine yàlla gii léegi leneen itam mooy li ñuy jubay dul bàyyi xel ci weex bi laay ñi di sol lan moo waral ñoom ñëpp di sol weex du parce que maam li ma moo ko wax genre nag nigal ñoom ñëpp ñu def après mu toog ci du ci wax dara jamono jooju di bii la maam su ma jumul balaa limaam laay di taxawal yoonam gi da gis koo xamante ni day sol basin basin bu rafet wala jasin bu rafet genre ñoom stade Abdou Samane may ji rek saa yu saa yu korité wala tabaski day sol solon gram du sax sol gram bu ay deux pièces ñu ñu rice lay sol parfum parfum rafet génn këram di julli ji su ma ne Euh, si sàpp su njëkk si mu dem sàpp su njëkk si su ko mënul mu jëm sàpp sàpp bu mën waaye am na ci yeneen nit yoo xamante ni tamit sama classe gi duñu am moyen yu mën a sol like jënd bassin yu rafet comme ci comme oustaz euh, dañuy sol rek comme par exemple li ñu soloon tabaski bee passé loolu lay sol pour Korité bi bala wala li ñu soloon gàmmu gee passé ñu sol ko pour Korité bi kon Limaamu Laay bëggu woon loolu genre like kii moo am kii amul kon nañ ñëpp sol weex pour wane ne ñu ñëpp benn la loolu mooy daas nga xam ne su pour dugg ci leneen beneen point bi mooy li tax ñu ne neen sol weex c'est parce que euh, bu leen fàtte ni bés dina ñëw ñu wuy suñu borom te suñu wuy ji suñu borom perkaal dañuy limas te perkaal bu weex lay doon soo demee Màkka sooy dem di wër kaaba gi ngay wax la allahumma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk laa sharika laka labbayk doo sol beneen couleur bu dul weex parce que parce que bés ngay def kon loolu loolu tax weex boobu am solo sëñ Mamoor mu nekk doom ci sëñ Murtada saa yu ñëwee day digle ñu sol couleur weex ndax couleur weex boobu day wane jàmm mais jàmm ci lan du jàmm buñ war a def entre ñun jullit ñi mais dëkk bi nekk muy dëkk muy New York City day wane jàmm bi ñu war a am entre ñi nekkul sax jullit day gis day gis sax ñaata nit la seen mu talaa tuub tuubal ñu doon ñu dugg ci diine lislaam bi ba ci seen Mamoor mi soo gisee université am noonu day gën a day gën a encouragé ñi nekk jullit sax pour ñu dugg ci diine lislaam bi euh, ñu delluwaat ci kenn ci doomu Maam Baay Laay ku ñuy wax Seydina naa Laay mun naa moom exemple la ci ñun ñëpp ndax moom tëdd na fi ay doom yoo xam ne ci kër ñeneen kër diine leen bokk tëdd na fi El Hadj Mansour Sy doom tëdd na fi Cheikh Abdou Khadir Jeylaani doom tëdd fi Serigne Moustapha Bassirou Serigne Serigne Mour Moustapha Mbacké tëdd na ko fi doom Serigne Man euh, Serigne Mansour Balxumi tëdd na ko fi doom Serigne Cheikh Mbacké tëdd na ko fi doom El Hadj Ibou Sakho tëdd na ko fi doom ak yeneen ak yeneen ba ci Serigne Abdou Lahad Mbacké sax tëdd na ko doom Euh, am na benn bés boo xam ne Serigne euh, Serigne Cheikh Tidiane Seel ñëwoon na di seet si ba Ablaye Thiaw Laye ñu ne ko xale maam li maamu laay ca Cambérène bi nga ko ko waxee ci jamono jooju noonu tra ñetti junni yow junni la génn ñu ne suñ ñëwee da ko teral ci lañ ko terale waaye teral boobu noonu day gën a ratax diggante du tiijaan yi dong waaye ba ci murid yi dong ba ci murid yi ak xaalis bi ak bu tarixa ba mënti dong ndax ñun ñëpp mu ne considéré suñu bopp ci ahlu laahi googu euh, bàyyi kàññ mi nekkoon ci maam baay euh, baay Ablaye Thiaw Laay dañ daan toog suma jumul suñu jullee fajar ba pare dañ daan ubbi buntu Cheikh Khadim ci jës bu xulóo tuddee fi eh, ñu jàng fi tey si mu Seydi Hadji Malick ñu soog a ubbi seen buntu bo ah, bopp maanaam seen xasida boo xamante ne maam Seydi ah, Seydi Limaamu moo ko bind wala xasida bu mu mënti doon boo xam seen yëf la dañ koy mujjee ñu jàng jës bu xolo bu Cheikh Khadim jàng fi tey si Seydi Hadji Malick ñu soog a ubbi seen bunt ah, waaleykum salaam Baye la bëggoon ñu doon benn te su waxee ñëpp ahlullaahi lay wax te su waxee ahlullaahi jullit yëpp lay wax kon kooku rek exemple la waxuma laaj suñ demoon ci yeneen yi doomu mambaay laay euh, war foofu laay tëj ci euh, maanaam mbirum yoonu gii di yoonu baay laay waaye ñun ñi kenn ku ne ci ñun war neen tàmbali li ma waxoon sax rek gën a ratax yoon gi tey li ma mooy war neen euh, waruñu xaar sax ba man di ma wala man man di ko di ko def wala oustaz di ko di ko wax war neen ajuma ju euh, ajuma ju jot suñ julli ji kër Sëñ Tuubaa benn ajuma ji ñu julli ci zawi Seydi Hadji Malick Sy it doesn't even have to be genre like euh, li amee wax road trip Modou Bassirou Fall mën na dem julli ci zawi bi beneen ajuma mu julli ci Christendouar te day fekk julli naa fa semaine passée ma julli ci Christendouar kon war day day wane ne ñun exemple lay doon ci oustaz Abdou Samad Mbaye bi mii ndax day wane ne ah oustaz mii nag am na lu mu jàngal ndongo euh, xale yu muy jàngal euh, yu muy jàngale te li ma waxoon sànq rek lii moo waral euh, ñu war kaa tuddee suñu baay ji wala suñu mag ndax soo xoolee bi bi euh, nenul mar am taxawale taxaw taxaw ba léegi soo xoolee euh, woon na fi tijaan yi wasifa nañ fi ñaari yoon ba ñett euh, waa kër Seexu Xadim ñëw nañ fi laa ñi ñu kër boo mënti doon ñëw nañ fi teg teg fi seen kon day wane ni oustaz mën wala wala nit sax na may wax nit en général mën nga gëm li nga war a gëm te doo tooñ keneen noonu ni loolu ngay gis jamono ji nekk li oustaz Abdou Salam wax ci benn ci xutbaam mooy jo toll leen ci jamono boo xamante ne ah, da ngay gis jumaay jumaay ñu wax ko ñu like par exemple Christian Touadji da gis kenn koo xamante ne moom day tudd boppam murit waaye suñ woowoon imaam Abdoulaye Diop ne ko kaay jiite du ko nangu tem like wala wala ñu woo kenn koo xamante ni tiija ah, ak tiijaan la rek ne leen na ñëw jiite di nga am kenn koo xam ne daal ak tiijaan du ma jiite te war nañ dépasser fi mu toll noonu parce que suñu mag yu baax ñi da ngay gis ñaata yoon am nañ fi photo boo xamante ne maam Baay Ñas la ak Sëñ Fallu am boo xamante ne Seydina Issa Rohou Laye ñu suñu mag yu baax ñëpp te dañoo wane exemple loo xamante ni li li ñu gën a war a mën a boole moo ëpp fuuf que li leen war a gën a mën a tàqali kon war nañ dépasser que man murid laa imaam Xaadim bu soo mën a jiite wala tiijaan laa euh, imaam Abdoulaye Diop moo war a jiite wala nee na këm sañu këm parce que loolu day gën a mën a tàqali yoon wi te kenn ku ne ci mag ñi ma tere suñ suñu demee ba am différence sax li ma waxoon léegi nii rek li leen war a mën a boole moo ëpp téeméer junni yoon te li leen war a mën a tàqal li tax ma wax sànq sama kàddu ne li leen war a euh, mun nga doon ci ñaari tarixa te du la du la gaañ ci dara nit yu bari da nga koy tàqali c'est parce que euh, nit yu bëri da nga koy tàqali ndax dañuy naan dañuy naan euh, werd yi par exemple werd xam kenn ku ne ci kër gi dañoo am sa werd bopp mooy werd yooyu noonu waru la waru la mën a tax nga doon murit doon tijaan doon laay ata sensaan tey euh, ci zawiya bi soo demee ci zawiya bi am na ku ku ñuy wax El Hadji Baara May moom daan na fa nekk daan na fa nekk waaleykum salaam euh, daan na fa nekk saa yu événement yi commencé rek moom bokk na ci ñi fay ñi fa daan dem moo xam korite la wala tabaski moo xam gàmmu la màggal sax daan na ñëw fekk ci euh, kër Sëñ Tuuba daan leen am na ñaari xale ñu daan àndal ak tout le temps daan leen ànd ak moom di wasifa gàmm su jotee daan na ànd ak ñaari xale yooyu di gàmm ak ñoom ba ci du sax daan leen ànd ak moom di burdu ak ñoom kenn ci xale yooyu nag mooy man mii di taxaw toog di wax ak man mi jàpp naa sama bopp comme ab tiijaan te ba tey ci laa nekk ma jàppe sama bopp en même temps murit ndax sama baay ci la nekk waaye donte ni sama baay ci la terex boobu lay lay foofu la xale yu bëri defee heure tamit sa baay murit la ok mais kama est-ce que xam kama Cheikh Khadim dëgg dëgg dëgg tiijaan laa est-ce que xam nga comme Seydi Hadji Malick Sy dëgg dëgg dëgg leen war a def suñu recherche bopp xam comme suñu mag ji baax yooyu keneen xale boobu mu nekk sama rak yàlla def tamit El Hadji Bara Mbaye boobu dafa wuyu boromam yàlla ko yàlla xare àjjana waaye li ñuy jàngal ba léegi ci leen nekk ba léegi te am na benn baat bu mu waxee ne tiijaan la mooy tarixa amul importance naka julli rek moo gën a am importance parce que am na am na yeneen yi yoo xam ne soo leen soo leen toppoo toppee ci seen comportement rek kon day indi gën a indi euh, diversity kon kenn ku ne day toog tere xam rek te te kenn ku ne du du bëgg a discover kenn yeneen bi parce que fi mu toll nii ba li may wax ak yow ne war neen war ay wax ci sew sew war neen saa yu saa yu gàmmu jotee kenn ku ne suñu xel yëpp war a dem ci Tiwaawan war a ànd ak ñoom gàmm ji màggal ñu ñëw kër Sëriñ Tuubaa appel bi saa yu jotee ñu def fi événement boo xamante ni war nañ ko fii mën a waajale appel googu euh, kon yàlla dimbali na ma tamit euh, Oustaz xam na ko mooy bokk naa ci loolu Sëriñ waaye loolu waruma warut tëye nga doog nga doon ci ndaw Sëriñ Tuubaa wala nga doon ci jeunes yi waru laa teye ba mën a am yenn ci relation mën nga gëm li nga gëm te doo attaqué kenn parce que su ma juumul ci alxuraan yonent dañoo euh, dañoo euh, wax ne lakum diinakum waliya diin su ma juumul yonent bi moo ko waxoon ci ñi nekkul woon jullit euh, bi mu ko koy wax c'est parce que da ko koy wax c'est parce que amoon ku amoon na ku nekkoon ku nekkul woon jullit te mi ngi woon mën naa wax ne sax jëm a attaqué ñi jullit te war nañ dépassé foofu noonu yaakaar naa ne ñun surtout si dëkk bi ñu nekk nii war nañ gën a dépassé ay affaire sama tarixa gën seen tarixa foofu laay tëjee euh, oustaz Abdou Samad Mbaye lay sant di gërëm la euh, mën naa wax ne sere yu ma ñu ma bëgg a sere ma sere la ko ci sa kanam sere sere ko ci kanam kanamu leen maraam gi mooy am na ci yenn nit yoo xam ne ne ci ñu bari ci fii ci daara leen maraam waaye mën naa wax ni samay mat doom ñoo fi nekk ba samay rak yàlla def oustaz ubbil ma boppam fii ci daara leen maraam bi ma ubbile boppam ci laa sañ taxaw wax ne bépp liggéey boo xamante ni daana na lu man am am na ko xamal ne dinaa ko jiitu dinaa taxaw tamit wax ne sama mag ak samay rak ñoo fi nekk de mais xamal ne suñ demee ba ci medd bi am benn genre dof boo xamante ni daf leen laa xamal ne sañ naa jaay sama bakkan sama bakkan ngir ndax sama kër gi laa bokk ñu ñëpp bokk diine ji lépp leen bokk moo xam jigéen la moo xam góor la ma xam ne ma ñàkk laa xam jërëjëf foofu la ñuy tëjee suñu kàddu wa salaamaaleykum wa rahmatulah. macha yàlla xam naa ne koor gi moom bëriwul lu ma fii commentaire ci waxtaan kenn waaye kii moom macha allah day kenn ci ñun ndax bëggum ñu bëgg bëggum bëgg daara ji ak ñun waa daara ji ak bëgg goo xam ne moom la bëgg xam-xam bëgg ko borom xam-xam di ndaw. loo xam ne bu ngeen fàttali ko sëñ Bachir Fall daaw laa leen doon wax naan na ngeen ko jàppale xam nga am na programme bu fi créé woon daaw jëm ko ci ay live Instagram man leen ndax day ndaw lu bëgg lu baax te fu ngeen gisee ndaw lu bëgg lu baax rek jàppale leen ko lu ngeen mën te boo ba ci lool lañ ko xam lañ ko xamee ci lu baax loolu lañ ko xam kon it bokk na ci ndaw ñi nga xam ne ñu ngi leen di bàyyi xel di ñaan yàlla sàmm leen aar leen def leen magi lislaam kàdd yi mu wax yëpp it gëm nañ ne yum tibbee ci xolam la yum gëm la yum bëgg la lu dëggula ci moom te waxtaan bi nga wax it xëy na wala fi moo xaw a des waaye ñun ñi nga xam ne ñoo ngi jaxasoo yow xam nañ bu baax a baax fi ngay waxee maam daal bi xulaasatil kalaam mooy bëgg na ñëpp bennoo te kenn ku nekk la nga doon bu ko jël mukk di ko yëkkati di ko dóor ci kaw keneen lu mu doon maanaam fonkal li nga doon waaye la keneen doon bu ko ko xeebal jàppal ni mi ngi ci lu baax comme ni nga nekkee ci lu baax tey ñuy demelante di amalante di échanger ay programme comme noonu mu ko waxee am na lu am solo li ndax man loolu moom wax dëgg yàlla dama cee gis naa bopp ndax maa ngi ko doon jéem muy di di di jullee si jumaa yëpp comme ni ma amee autorité julli ci <coughs> jumaa ji nga xam ne fa laa bokk di jumaa yi kër sëñ Tuubaa noonu laa amee sañ-sañu en tant que ab jullit nag avant tout di jullee fu ma neex te am na ñoo xam ne jullee feneen nag moom la ñu dem jumaa leen ko gën loolu moom lépp saytaane si yàlla musal loolu maa ngi ko jëlee ci sama baay sama baay da daan ànd ak man fu ne la ñu ànd julli ji naa ne sexe kër sëñ Tuubaa gi ansaaru diin zawiya ba fu ne la ma miin lool loolu nag bu jógee dama koo continuer tey defe naa ne noonu la jullit ñu war a doxe man de man de Abdou Samb bis bu daara ji yaatoo ni ma ko bëggee ba mu yaatu lool comme ni ma ko bëggee bu boobaa moom danañ taxawal fii di julli àjjuma tey danañ invité yeneen kër diine yëpp ñu fiy jiite nag tey loolu moom mbir la moo xam ne li ñu ko teree def mooy dañoo amagul espace rek waaye bis bu ñu amee espace ba carte bi mate ko moom ñëpp fiy jiite danañ invité ay imam ñu nekk ay sénégalais ak ñu nekkul kenn ku nekk koo xam ne boroom xam-xam ngay danañ jàppante yow même boo déggul anglais danañ fexe ba ña fa teew te ñu mën a fexe ba bañ déggal leen la kooka di wax bu dee boroom xam-xam danañ fexe ba def loolu kon yàlla na leen yàlla sàmm yàlla sàmm ñu yàlla sàmm barab bi motuma leen bàyyi nag ab ab booy laa rek <laughs> danga naan booy sama waaye motuma leen bàyyi moom <laughs> baax na jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah